ñu ngi taxaw ak nag al oustaz euh, Mouhamed ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara xam naa rek mu won ñu mbégteem ci macha allah ci ndam li nga xam ne al oustaz Mouhamed indi na ko fii ci Sénégal. Euh, barakallah Seyda Jamila ñu ngi lay nuyu di nuyu nuyu sénégalais yi waaye di nuyu Mouhamed Lamine Diop amiru shuara euh, champion de poètes wax dëgg yàlla li nga laaj ci suñu yëg-yëg ci Mouhamed li mu indil yëg-yëg bu rëy la parce lu ëpp junni nit. Eh, bokk ci benn compétition nga di leen raw di leen raw ba ñu def six personnes nga raw leen loolu bu ñuy wax dañuy wax ne rek fa mbégte yam wax dëgg yàlla yegg nañ fa ci fànn yëpp incha allah. Mm-hmm. macha allah dégg naa la itam nga leeral lu am solo ci mbooloo mi nga xam ne moo fa daje woon ci réew yu bëree bëri waaye ñu gis ne al Mohamed euh, al Amin Diop macha allah moo dem ba nekk ca kanam a kanam loolu di wane ne senegal macha allah am na ay tout tànk yoo xam ne dañ leen a war a taxawu waaye ñu bëgg nga waxal ñu kan mooy Mohamed al Amin Diop. waaw Mohamed Lamine Diop buñ doon wax mooy kan dañuy wax ne moom daal sénégalais la bu juddoo fii ci senegal Eh, yaroo ci daara papam di sëriñ daara papam wax na ma ci làmmiñam ni ma Mouhamed bi mu matee dem daara am juróom-ñaari at booba ba tey jii nekkuma ak moom ci kër gi ñeenti weer lépp mu ngi ci xam-xamam jàngee ci ay way juram loolu ci la topp ba mu dem Maroc eh, ci la bokkee ci compétition bi ba yegg si fii vraiment jël ndam li di xale bu am dogu di xale bu jàmbaar di xale bu am diine di xale bu dëggu parce que papaam bi ñuy waxtaan dafa ne ma dëggu gi ci moom dëggu gi ci Mouhamed loolu nag dafa am solo kon daal Mouhamed Lamine Diop mooy sénégalais bi nga xam ne euh, mën nañu wax ne bu sénégalais yëpp meloon ni moom Sénégal dafay féete kaw ci àdduna bi ci fànn yëpp ndax njàmbarteem ak dogoom ak bëgg réewam ci misaal dañ ko laaj ne ko dañu bëgg ngeen wax ci seen réew. Euh, ci seen taarix réew nag seen aada ak seen ay nit ñu màgg ci démb Mouhamed Lamine wax ci guy garabu guy dafa ne moom guy dafa am relation moom loolu ak guy ndax guy dafay wane lu am solo ci Afrique daf koy fàttali démb daf koy fàttali fa nga xam ne fa la ndëkk àll ya nekk village yi ak huile loolu dafa am solo bu dee ci magu démb ñi mu sa sa présenté Serigne Touba Mawlana Cheikhoul Khadim mu représenté magu diine yëpp mu ne moom dafa dund ay jafe yu bare bari nekkoon ci loxo ay noonam waaye li ñuy wax bañ ak njàmbarte ak jéggale ak baale ak jàmm dafa feeñ ci moom li mu ko fësale mooy dafa ñëw daal di annoncé officiellement ni képp koo xam ne rek ñaawaloon nga jëm ci moom jéggal la waaye loolu tax na vraiment nganjaayam gën a yokk kon fonk démbam tam dimbali na ko barakallah laaj bi sax day tontuwaale boppam Mouhamed da doon waat wàcc na parce que raw na àdduna bi ñëw léegi ñun nag ñooy wàcce wàcce gunu peuple bi def nañu seen bu njëkk mooy tertu nañ ko sagal nañ ko ter sargal nañ ko mu dekk nag ki nga xam ne mooy borom réew mi mooy le chef de l'état président Macky Sall ak soxnaam dañoo bëgg ñu dalal ko comme ni ñuy dalale buur parce que Mouhamed Amirou Chouara mooy buuru ñi nga xam ne ñooy ñooy taalif ay xasida ndax xasida yi mag ñi doon taalif euh, Mawlana Cheikhul Khadim bu ñu nee xasida xel yëpp dem ci ñoom Mouhamed foofu la génn mooy taalif maanaam euh, xasida te way way yi muy way daf ñuy delloo ci démb léegi nag xale bu mel noonu ba pare mel nii mu mel bu ko xale yëpp nuroo kon dafay am solo moo tax li ñuy xaar ci euh, mooy ñu taxaw wan ko ni yëg nañu li nga def waaye chef de itam bëgg nañu mu taral ka comme lu ñu tarale buur incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu soxna Jamilatu wax nga dëgg xam naa di sant yàlla bu baax a baax rek di nuyu mbokki jullit yi ci àdduna bi yëpp li nga wax léegi. am nañ mbégte moo xam ne suñu borom rek lañ koy seedeel euh, loolu li ko waral mooy dafa am loo xam ni moom nga dàkk moom nga ma dàkkante la man ku ma xam ci daara nga ma xam jàng alxuraan ak jàngale ko ak yar doomi jullit ñi kon alxuraan bu amee ndam ci kaw adduna bépp maanaam loolu suñu mbégte lay doon euh, la ca dolliku mooy kii nga xam ni moo jël ndam lu rëy loolu bokk ci suñuy doom di doomi réew mi kon am nañ mbégte mu baax a baax a baax a baax daara jooju nga xam ni moom ngay gaaral nekk fële ci route de Bour nekkoon baar bu ànd ak auberge yàlla defal nu taw feex ba nu jënd ko ci 32 millions soppi ko ba fi mu toll nii boo demee ay alaxaatul quran nga fay fekk waaye lépp rek bëgg alquran ak fas yéene liggéeyal sunu borom subhaanahu wa taala ci téereem bii Mouhamadou mi nag def na ndam loo xam ni nun danoo wax ni li nu ci war mooy ndam lool nun ñi nga xam ne nooy ahlul quran nu yëkkati ko ba won ko waa Sénégal gépp ndax ndam li Sénégal gépp la ko defal su ko gisee la ko tàmbalee ci président de la république ba ca jaaykatu caaf ba am na lu ko war ca ndam loole su ko defee nag la ko ca war moom bu boobaa nun wàcc nañ moom na fexe ba la ko ca war mu def ko. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw buñ leen sante bu baax a baax ci mbégte mi nga xam ne moom la mbokk ak yéen rek euh, ñu ngi fii ak euh, sëriñ bi nga xam ne moom moo jiite. lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu organisation bi maanaam euh, mbégte mi nga xam ne moom lañ doon wone fii ci institut islam doon fi décoré ki nga xam ne moo di Mouhamed Al Amin Diop euh, ci ndam lu kawe li nga xam ne moom la indi ci wàllu genre sëriñ bi ñu ngi lay waaw salaamaaleykum soxna ñu ngi lay delloo euh, sëñ Khadim Faye waaw ñu ngi ziar baax a baax. naka ngeen def ba organiser li mbaa mettiwul ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu finance ndax ku gis fii xam ne am na loo xam ne nii moom ngeen fi def jëmale ko ci wàllu finance ak yu demee noonu naka ngeen def ba organiser lu di gën di delloo nuyoo rek salaamaaleykum wa rahmatullah ñun ay jeunes lañ yoo xam ne ci daara ji lañ jàngee ñun waajuram bu góor moom moo ñu jàngal ñun ñu jógee ci daara ji Miftaaxu Nasir ci lañ formé benn groupe boo xam ne ñu jóge ci daara ji bépp activité buy am ci daara ji rek ñu ñooy taxawee taxawaay boobu dëgg yàlla mbooloo mi yëpp ñoo ci jàpp kenn ku ci nekk li nga am lépp nga indi ko indi sa doole ak lépp ba yàlla suñu borom dogal daal ñu organiser affaire yi ba am nañ ci daal lu kawe suñu jortu mbaa am ngeen ci ndam kontaan ngeen ci li ngeen bëggoon. waaw waaw kontaan nañ bu baax a baax ndax boo xoolee Sénégal yëpp presque ñëw nañu wuyu si euh, kilifa yi ak euh, côté président bi gouvernement bi yónnee nañ yónnee na ay ndaw kontaan nañ bu baax a baax ci ni nga xamante ni noonu la nit ñi ñëw teew teew ci ci ci jotaay bi kontaan nañ ci bu baax a baax ci sant dégg leen yéen ñooni alquran yéen a raw fii